lu tax yeesu dee ci bant ba yéesu nekkuloon bàkkaarkat wante dafa dee ngir xaajoonu ak bàkkaar dafa dee ndax yekkati bàkkaarkat bi mu jege ji yàlla ndax dañoo sori woon yàlla ndax suñu bàkkaar léegi kañ yeesu mooy xarum yàlla mi wàcce ci asamaan te amul benn sikk amul benn garab sarax bu ma sëkk la te boo nangoo yéesu te nga nangu ko ci sa biir xol dina la soril bàkkaar yàlla wax na Jésus mooy suñu musalkat te def ñuy delloo ndax ñu nekk ay doomu yàlla maanaam ay xaaritu yàlla